jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato yéen ñi koy suivre lamb ak réalité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV mardi 28 juin ci atum 2022 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekkati fay affiche am solo tombeur de franc bête noire de Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 le nouveau roi de Stade Diop Iba Mar Diop le nouveau roi de li nga xam ne nii moom moo di lutte simple waaye ba ci ki xam ne moom moo di Mbaye Pape ji sur 3 juillet ci atum 2022 diggante Kewel ak ki nga xam ne nii moom moo di fay Faye la mu xam ne moom moo di daal ki nga xam ne ni moom moo di Kewel pour moom kii di Tidiane Faye jeexal na tàkk mais déedéet demewul noonu de waaye ki a xam ne nii moom moo di Khadim Ndiaye nekk foofee a xam ne nii moom moo di ca caaro yi di Khadim Ndiaye numéro 1 la mu xam ne moom moo di day Khadim Ndiaye c'est catégorique de ki nga xam ne nii moom moo di si Thiès ak ki nga xam ne nii moom moo di Reug Reug ki a xam ne nii moom moo Sa Thiès bis bu rek day moom Khadim Ndiaye li nga xam ne nii moom moo di xaj astaghfirullah ci wax ji ñu ngi tuub tey jégalu waaye ba tey kee xam ne nii moom di ngàncaay ñëw na ci combat Balla Gaye 2 kee xam ne nii di Gris ci revanche ba ñu war a amal la mu xam ne daal moom di Balla est logiquement favori devant kee xam ne nii moom moo di Gris waaye kee xam ne nii moom di Balla Gaye kale ba mu am ci boobule combat rek day te war koo mën a exploité day moom di xeex ba waaye kee xam ne nii moom di Gris 2 ak kee xam ne nii di guy gi ba di ñaari champion muy l'homme fort ak ki nga xam ne nii moom moo di Malem Niani numéro 2 journal sunu bu xëy fësal leen ci xam ne nii moom moo di qualifié de les apports bien placés waaye ba tey journal sunu lamb di ñu xamal ne moom Gris Bordeaux moomee ñëwoon na ngir jàppale ki nga xam ne nii moom moo di waaye ki xam ne nii moom moo di El Hadji Cissé de CNC bi xëy di ñu xamal ne de xëy na di ko waxal ay baax baaxam très courtoise ku yaru la ku jàll ci nga xam ne nii moom moo di Mame Diarra ma tëggoon ca stade Iba Mar Diop ah, di lutte simple la mu xam ne moom moo di réussir son baptême de feu à stade Iba Mar Diop papi général vatir renu son ngemb ndax dafay dellu si waat takkaat li nga xam ne moom moo di ngembam wala déet kii préparé ki nga xam ne nii moom moo di Pape Abdou Fall ginnaaw ba ñu ko gëjee dégg lool moom Pape Abdou Fall te kii di Assane Ndiaye ah, kewel ak ki nga xam ne nii moom moo di Tidiane Faye le 3 juillet ci xam ne moom moo di ca sa waaye ba tey ki xam ne ni moom moo di Arona Sall xëy di wax qualité i nekk ci Balla Gaye da ak i baax baaxam mu mel ni daal taggal na ko ay maamam wala boog wax na li mu xam ci moom ci ki nga xam ne ni moom moo di Balla Gaye da njool sen baat ki xam ne ni moom moo di Toubacouta ajalor Iba Mar Diop Tony imbattable ça c'est le laissé moom Tony moomee day ci ay moromam di ay poids laissé kenn mënu ko ci teg lu ko naqari ba tax na daal man na jàpp ne mooy le roi xam ne nii moom moo di ca stade Iba Mar Diop diggante moo di jalgati lamb ñoom ñaar ñooñee day ginnaaw ba ko ki nga xam ne nii moom moo di Ada daanee jël bu kenn dootul miim jël bu kenn dootul werete yéen ñi koy suivre lamb actualité te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV du ne kenn bu ma topp waaye ku jooy dëpp la ko dalee Thiès xombal bambayal tundangal maag seew kabaak laañaar kër daama kër sayel jàll du la patal kër Ibra Yaasin sambe ngewel sambekol dala ba daaru xafoor siyaare sëriñ ba Seck Ndaanaan troisième catégorie ancienne gloire bu kenn dem restez chez vous